salaamaaleykum mbokki internetu 11 news maa ngi leen di béggee di leen nuyooti fa leen daan ti rek tey ñu am mbégte dalal ndaanaan di nag doomu Thiès Euh, kooku mooy Ndeye Mbaye Ndiaye di xale bu mën a woy macha allah euh, une très belle voix une voix mélodieuse également mais traditionnelle également moo si mën ndax am na fu mu ko mbapatee ba fi toll fi mu toll tradi moderne également mu siy def lu am solo en tout cas elle fait le buzz comme ni ñu koy waxee euh, goney Thiès gàngook tey nag lañ ko dalal tey si 11 news ñu fas yéene waxtaanee carrière bi fi mu nekkoon li ko si dugal fi mu si toll ak ses projets voilà kon nag dama du ma def rek lu dul nuyu ko kooku nag Ndeye Mbaye Ndiaye nday na nga def. maa maa ngi fi maa ngi fi di jamaxu maa ngi fi maa ngi nuyu Sénégal gi yëpp di jox kenn loxo di leen jox seen wàccuwaay di nuyu soppee na bi yëpp. maa ngi leen di nuyu salaam salaam. en tout cas euh, melul ni ah nu mu kiiwee nii ni daal nii nga foog nii mais xoolal si kanam ngeen di comprendre que ni euh, macha allah euh, mën nga présente sa bopp tey su doon wax kan mooy Ndeye Mbaye Ndiaye. Euh, lan ngay wax euh, si tënk euh, wax ma un peu xam naa ni si askanu ngéwël nga bokk xam naa ne danga war a way donc yëpp xam naa ko mais bari na ñu ko xamul tey boo doon wax ñi lay seetaan kan mooy Ndeye Mbaye Ndiaye di wax. waaw man maa ngi Ndeye Mbaye Ndiaye dëkk Thiès doomu El Hadj Pape Thioune Ndiaye ak ajaratu Ndeye Maguette Mbaye. Mm-hmm. set ci na koy jëre sekk. Mm-hmm. waaw doon daan doon way. Mm-hmm. doon ndaanaan gi ma doon nag. ndax dama judd fekk samay bàjjan. di tagg Seydina Mohamed sama papa di tagg Seydina Mohamed waaw man mën naa ni ci aar daal laa yaroo. Mhm. këru ngéwelit laa yaroo. Mhm. waaw. Eh, si lan nga tàggatu dëgg la danga fekk say say say parents di way di tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais si lan nga tàggatu dëgg-dëgg lan moo la forger si nga jàng way wala nga doon wayantu ak naka la demee. waaw bi may xale dama daan dama dem. fu programme am damay dem ci ginnaaw di déglu way yi daan ci fo di wayantu it di dem ci simb yi dem ci làmb yi dem ci ngénte yi comme ni ma ko waxee ba tax ma doon li ma doon tey mais samay waajur dama juddu fekk la ñu doon tàggatu Seydina ndaa mais yàlla moom mooy dogal xiir ma ci musique may musique waaw mais wax dëgg yàlla man daal maa ngi nii Ndeye Mbaye Ndiaye daal ngi doomu cees dëkk Thiès mhm. maa ngi nii daal. Euh, kañ nga commencé ni voilà jot na ma daal di si jël sama wàll maanaam professionnellement nga dugg si li nga xam moom mooy musique kañ la est-ce que yaa ngi koy fàttaliku. waaw dëgg la ndax bi ma njëkkee ànd ak mu yóbbu ma film mm-hmm. laa. ma dem fa ñu koy jéewal mu fay simba mu yóbbu ma tournée bi ma ñëwee. Mm-hmm. man tournée boobu ma yéeg demal ko Abba ci oto bi bi ñuy dem maa ngi naan ay waay lii de yàlla naa dund ba ñu yéegaat ci oto ñu naan dañuy dem tournée Europe. di joué ji ay ay waa ay concert yooyu. yaa ma gën a xam. Mm-hmm. waaw tournée boobu noo ko dundee woon lan nga ñu mën a fàttali eh, si wayu simb nga xam ni yàgg nga ko yëkkati eh, ba gaynde yi wala bokk eh, maanaam jabaru gaynde yi di aalu di di am nu ñuy def loo loo ñu mën a yëkkati. waaw su ma su ma a ànd ak Abbas dugg si. moom boo dugg seere daf wax nday mbay wayal ma mbaari fayaat ma mais it wax dëgg yàlla am nañ yeneen way yoo xam dañ ko daan wayal simu yaay yaay ñaay simu yaay yaay ñaay simu yaay yaay ñaay man naan ko bakk ko yaay ñaay bàkk naa ko yaay ñaay tey ma delloo di way cosaan njaay simbo yaay yaay ñaay eh, en tout cas mi ngi noonu waxoon naa leen tekk yom gi eh, bàyyi leen ci xel en tout cas mi ngi nii est-ce que xam nga da nga way macha allah. waaw dama ci osé nag. noonu uh-huh. noonu su may way nii pareen saay ba. jàkkaarloog di jamaari mu yokkal ma sono bi. Mhm. gaa yëpp taxaw. Mhm. ah damay tiitar moom naan leen damaa mën a woy damaa doon way. waxal gaa yi kon euh, ñi lay xaar parce que da ñëw pour boo xonte de est que xam nga ni du yomb. ñeme naa leen. Ah. boo xonte damay ñëw damay dugg. Ah. bàyyi leen ma xel maa ngi ñëw damay dal seen kaw. tiituma leen. voilà euh, boobu ba léegi nag nga commencé dugg si musique bi euh, fas yéene euh, def carrière ñaata single nga si defagum wala album fan nga si toll. waa comme ni ma la ko waxee woon maa ngi quatre single. quatre single naa la léegi su ma gisoon ku ma produire ma defal la léegi quatre deux albums yu teguñu léegi. kon pare nga deux albums yu taxaw. pare naa. single yi lan lan woon yan lan ak lan nga way. waa mbëggeel laa way. ak sama noon ñaari mbëggeel sama noon ak sama yaay. ak Euh, donc kon dégg ngeen ko euh, producteurs yi kon mi ngi noonu xale baa ngi doonu xaar leen ko ngeen mën a ñëw nag euh, vraiment jàpp si bagage yi en tout cas Thiès bi nga dëkk naka la assainissé moroom artiste wala boog cees waaye jàppee est-ce que yaa ngi si yegg sa bopp dëgg dëgg dëgg dëgg. waaw ndax dëgg yàlla nag ñun lu lu mu guddi guddi cees lañu ñuy ñibbi te la ñu mm-hmm. tey wax dëgg yàlla kenn ku ci nekkit boo toogee. ak sa moroomu artist di nga xam ni boo nekkee ci programme sa nawle ñëw di nga ko yaatal jox ko mu def ba doyal mu mu dem te doo ko wan benn xolu kiñaan loolu moom loolu moom Cees la am wax dëgg yàlla xolu soxor moom nekku fa waaw ñu ngi ñu ngi ànd di liggéey mhm. kenn ku ci nekk jàppe nga sa moroom sa bopp mhm. comme kii ma la wax léegi rek alsaan mi may dabalal moom mooy dëggal Cheikh mbay ak Ndiassé mais sama single bi ma njëkk def moom moo ma ci aw. waaw ki ñaan la wax dëgg yàlla su may may dem mu ànd ak man dama jàppale Dija Madi ak sama borom kër ci Thierno. mais yaa ngi joué Thiès yaa ngi joué euh, si si boîte yi yaa ngi joué est-ce que yaa ngi joué dëgg dëgg dëgg. waaw maa ngi doon joué tous les mercredis maak Abbas. ok fee ca Place des Arts après moom bi mu demee tukki. Mhm. man damaa toog maa ngi doon joué tous les dimanches la plage. di ci eh. ànd ak Cheikh Tidiane Mbaye giri doog a daaw Diagne Mbaye mm-hmm. moom mooy càmmiñu Sukay mbaay mm-hmm. waa dëgg neexul. am na lu xew également moom mooy eh, xawaare yi yi nga xam ni moo xam xew yi est-ce que yaa ngi si yaa ngi si dem dëgg. waaw comme jàkkaarloo yi. comme jàkkaarloo yi sama DJ bi suñu ko woowee jàkkaarloo dañ ko naan dañoo bëgg nga wol ñoo sa jigéen bi mu woyal na ko moom it moom bu ko ne moom bu waxee ba pare sax bu ma nee ñëw rek man damay daal di ñëw. Mm-hmm. tey wax dëgg yàlla Cees it lu waaye def te woo Ndeye Mbaye pour yow neexul. Mm-hmm. waaw loolu lan moo la ko may lan moo la may tey jii euh, euh, xëy du ma ne siwoogoo mais euh, nga toll fi nga toll nii mais tey jii nga ni Cees képp ku nga xam dafa am xew rek te te wayoo ko rek foo wayaloo ko. waaw gëm sama bopp. Mm-hmm. gëm sama bopp ndax su ma xasee ba te micro man sama fa jeex na mm-hmm. damay liggéey. dugg nga si làmb ji si si simb bi yaa ngi doon doon doon nga way ay mbappa également. ñëwal ma si làmb gi làmb gi loo may ma dara. làmb ji saji na kuy laale ay te la sàmba yaa ni ngaan kuy laale ay waay làmb ji saji na kuy laale ay te la sàmba ngaan kuy laale lan nga bokk ak euh, ndaanaan tey soo woyee sama xel dem si Ami Collé wala mu dem si ki nga xam mooy euh, mbenn Diatta sekk suba jigéen euh, tey ji ñu ngi la koy wax wala dafa am loo bokk ak ñoom. waaw ñoo bokk ndey. Mm-hmm. ñoo bokk ndey. Mbène Diatta di sama xarit. Mm-hmm. ki nga xam ne moom daf ma bëgg. Mm-hmm. lu ma woy su ko Mbène Diatta Seck dégloo ni ma rakk lii lu mu doon ma ne man maa ngi sa gannaaw. Eh. wax dëgg yàlla moom nit ku baax la. mbenn jaata bu sina weesa daf ma koy envoyé. lu mu def envoyé na ma lépp a sama téléphone. muy artiste bu ñàkk ki ñaan. Mhm. ku baax ko xam ne bu sañoon man dépassé naa fii. est-ce que am nga chance su euh, côtoyer ñu mel na euh, kii ne la Mame Bamba Fatou Guéweul Diouf Ajaratu Fatou Guéweul ak ñeneen ak ñeneen est-ce que am nga chance su côtoyer leen wala bokk euh, ba tey loolu amagul. non non wax dëgg yàlla amaguma chance boobu moom. Mhm. amaguma chance mais bëgg nga ko. li ma gën a bëgg ci sama àdduna mooy Youssou Ndour tëgg concert Bercy ma taxaw. li ma gën a bëggaat Wally Seck tëgg ma taxaw kon xam nga ni man tiituma keneen. eh eh eh, eh Ndeye Mbaye eh, en tout cas ñun gëm nañu loolu parce que gis nañu talent boobu si yow. Eh, musique traditionnelle tamit macha allah sa force la am na lu ma jot a déglu nga def ko si net bi mu doon benn anniversaire boo sànni noonu rek. Mhm. yooyu genre boobu noonu xeet googu noonu. waaw boobu dem sama doom. Mhm. moo doon def anniversaire ma koy defal vidéo Oumy Gueye Mbaye mhm. Jéeri Ngoone maa lube Samba Kulibing ci seen ndaat boo dégloo ci biir waayu maa ngi naan ko sama doom ji Jéeri Ngoone. Mhm. maa lube Samba Kulibing ci seen ndaat mhm. kooku sama doomi bopp la. sama doom ji ma bëggal boppam. kooku man aw ma fayam. dama koy ñaanal rek yàlla bàyyi ko borom këram te ñaanal ko doomam ji am yàlla waa déggalool mi ngi noonu di sama doom di sama xarit. naaru Ibrahima Mbay ak Rama Saw ne leen yeddaake fariya daake fariya daake bu ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaaw Ibrahima Mbay jeeri ngoone mbay yoo maalu be samba kulima ca sengi ndaat mbay si Malik Bakare dara maan waaw waaw ndeysaan ah. mi ngi noonu daj si doon ñam pour mm-hmm. eh, wane traditionnel bi mën nga ko eh, maanaam daal mën nga si bi boor mën nga si bële boor Euh, yan thème ngay faral di aborder si bind lan moo lay gën a inspiré euh, tey wax nga ni am nga tey ñaari kaset yi nga xam tey jii bu fekkoon produteur taxawoon na pare nga tey duma la wax nga way li nga xam génnagul mais thèmes yi ñii dañuy wax si sëy ñuy wax si si si si si si jëw ñi say thème lan la yi ngay aborder. Euh, li li li ci réew mi moom fi mu moom mën jeex. lii tam ci réew mi mënta jeex sunu sunu yoon bi ñu jugee cees ñëw ndakaaru sax daanaka li ngay romb lépp rek di ko gis yëpp ay tem la lépp ay tem la comme li nga wax sànq ñi jël seen i seen di ko fay ci gaal gi di dem lépp ay thème la tey bu ñu toogoon seen réew mi yàlla mën na leen ko may ndax yàlla bi nekk fii moo nekk fépp kon fu waay nekk suñu borom fekk la fa lépp thème la ndax chaque jour rek ñuy def lu waral mm-hmm. artiste bi di gis lu mu way Ah. yaa woy Waly Seck yaa ko wax léegi yaa ko tudd eh, lu tax nga woy Waly eh, mënoon nga woy keneen eh, lan moo la motiver nga woy Waly Balago. waa bëgg a mel ni moom. Mhm. bëgg a mel ni moom ndax Waly dafa doon nit ku gëm boppam ku bëgg boppam ku soxorut ñaanul xaw ma ko xamuma sunuy maam benn la mhm. Mhm. dégg nga li ma la wax. xaw ma ko xamuma mais sunuy maam benn la. jàpp nga ni fi mu toll tey moom moo fi indi boppam. Wally Seck dafa gëm boppam ba agsi fii mu agsi kon keneen ku bëgg a mel ni Wally dangay gëm sa bopp ba agsi fii mu agsi ku soxorul ni yàlla ak diw waaye nag ku soxorul ni Wally moo fi ne waaw kon Wally fi ne moo fi ne ku yabu nangul ko ko ku bëgg bañ moo fi nekk teel a nangu day yoloma li dóor ah waaw loolu am bëgg bañ moo ne eh, lan nga ko way loo ko wax si way bi jëlali nga moom man ma jëlli ma moom jëlal lii ma moom allaay lay lala bu guddi gi xaaji ñun dani li tiyeey jëlal li nga moom man ma jël li moom ma moom jëlal li nga moom man bi naa ngi de cëndu gi njar ka démba ca lambaay njiinooru njiinooy sa maam daagu daagu daagu daagu daagu daagu dégin mbaay ajaratu jagala ni woye sa yaay papa coonay sa baay kii maay way mooy baay Muhammed ay waay seeri soxna ay dara waali mook yaayum amadi bajaan dëgg neexul waay wi rëy en tout cas euh, macha allah yàlla yàlla lafa la cat euh, wéral baat bi euh, jàpp nga ni déglu na son bi moom Wally jot jotagu ko. waaw jotagu ko nag asaf wóoru ma. mais bi son biy moom daf ko fekk mu tukki. Mm-hmm, léegi ma jox ko Youssou Dieng. Mm-hmm. di sama doomu mag Alaaji Papa Dieng. Mm-hmm. ndax soxna Alaaji Papa Dieng maa moom ñoo bokk benn ndey. sunu ñaari papa yee papa yaayam ak sam papa bokk ndey ak baay. muy ñu doomu bàjjan ak doomu nijaay Sofia Dieng di sama doom bokk ak Youssou Dieng benn papa ma teg ko ci loxo Youssou Dieng munuma dinaa ko jox grand bi mais dafa ñëwagul. Mm-hmm. léegi su ñëwee man dinaa la woo ba nga ñëw nga toog mu toog ma tegal ko ko. Mm-hmm. saga moo woogu damay jàpp ne kon. Mm-hmm. jotagu ci. waa waaw loolu laay jàpp. may jàpp ni jotagu ci. d'accord euh, tey fan nga bëgg yegg si musique dëgg-dëgg yaa ngi wax sànq nii bëgg nga day def def première partie Youssou Ndour wala Wally Balago yaa ngi naan tey jii bëgg nga voyage bi nga jëkk dem dem way simb nga ni yaa doon ay ay voyage nga xam ni avion ngay jël euh, tey fan nga bëgg yegg dëgg dëgg dëgg maak sama groupe. Mhm. am na doon dem Bercy. waaw ñu koy tagg ñun. mën na ne. incha allah loolu laa bëgg. Mhm. ak leneen ak leneen. Mhm. bëgg naa lépp lu lu lu lu lu lu artiste def. Mhm. ma bokk ca. gis naa ni maîtriser nga trad musique traditionnelle macha allah trad moderne yaa ngi si eh, mais yow yaa eh, tungu ne du teew eh, ñuy natal est-ce que xam nga fan nga gën a force fan nga gën a aay fan nga gën a taxe ndax xam nga ko. waaw man man daal en tout cas. Hmm. man bu gaa yi jàmbee ba jàmb. Hmm. la ma répété sax mën na am sax duma ko wax. fële nga koy teg. waaw indi sama yëfi bopp. loolu sa saa neex yi moom yooyu lay def moom day répété lii gaa yi ñëw mu mu génn feneen. yooyu yooyu looloo lay moo lay waaw loolu tey wax dëgg yàlla may ànd ak gaa yu baax ñu ñàkki ñaan ñoo xam ne àndewoon ak man ngir xaalis ñooñu. man bu may wax ci ñoom duma fi jógee dama leen di ñaanal rek yàlla bàyyee maak ñoom. Mm-hmm. yàlla bàyyee maak sama groupe. Mm-hmm. groupe baax yaay. Mm-hmm. yàlla na ma sunu borom bàyyeek ñoom. baax yaay nga ko tuddee sama DJ bi moo nekk ne ma Madi DJ maadi neex son. waaw mooy DJ neex son. non daa allah fekk si live yi am lu si jël wane ko. macha allah boo ñëwee doo ko réccu. Euh, voilà donc léegi nag euh, lan ngay lan lan lan ngay tàggoo lan ngay wax ñi nga xam ñoom ñoo lay euh, seetaan tey jii mais bala ngay tàggoo sax bëgg naa nga sant. te xam naa ne am na ñuy jàpp si combat bi ñan ñoo jàpp dëgg-dëgg si combat bi parce que boo tàggoo itam bëgg naa comme si ëttu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nga nga yaroo ma fa nga màggee nga yëkkatil ñu tuuti si nabi bala mais bëgg naa nga sant gërëm bala ngay yëkkati bala ngay dem foofu. waaw comme damay teg incha allah concert le première le premier euh, janvier. janvier waaw fee ca terrain Jokko. Mhm. ma ci woo Thiès gépp ak Dakar gépp ku ci mën a ñëw jàppale nday mbay nga ñëw. Mhm. maa ngi ciy woo sunu yaay assu yaayu Madi borom Mari Samba Couture man awma ma fayam ndax it moom ku ci jàpp la Mari Samba Couture mi ngi nekk côté dixième ku bëgg lu rafet na nga ñëw ci sunu yaay jooju dina la dagal ba mu nice bëgg Madi yi bëgg ñu ñun ñëpp di ci woo Ablaye fay jantal Mara di ci woo Ablaye Dieye di sant nag Omar Diop nga xam ne def ñu jàppale bu baax a baax a baax a baax ñun amuñu fayam Pape Doumbouya borom Thiès. mbokk yaay Mohamed borom Thiès ca kanam. maa ngi woo Thiès gépp di woo suñu yaay Marème Marème Diop Silla. ak euh, El Hadj borom Thiès TV. waa Thiès gépp daal ñu ngi leen di woo woo nañ ñëpp pour ñu ñëw teg loxo nday Mbaye Ndiaye teg loxo en tout cas euh, groupe Rasoul Média du si des benn yoon ginnaaw dina ñëw Thiès ak Dakar 92 point com ñu def live bi également euh, jël li ñu war a jël également Eleven News TV tamit euh, teg ko maanaam wane ko après le premier incha allah kon ma ngoog le premier la si biir Thiès la fan la nga ni. terrain Jokko. terrain Jokko ban heure lay doon. waaw ci suba gi. Mhm. dañu ànd ak sunu. waa Thiès ndax ñoom it dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ñu indi fa ay docteur yu ñëw. ñuy faj gratuite. Ah, waaw consultation gratuite. Mm-hmm. jigéen ñi. jigéen ñi ak góor ña ñëpp. Mm-hmm. waaw gratuite. ngoon gi ñu bégal xale yi concert. xam nga ni loolu yombul. waaw mi ngi doon seen artiste ngoog teg leen ci loxo Ndeye mbay Ndiaye euh, en tout cas man bokk naa si ay fansam euh, man dama ko fan man man dama dama dama dama nërmeelu en tout cas te man du ma waxantu ndaanaan rek laa mën a xam en tout cas yàlla may na ma loolu mosuma am prof musique dans ma vie jànguma musique fenn waaye nag nopp gar mi nag yàlla may na ma ko waaw macha allah en tout cas ñu ngi lay sant jële gërëm euh, ñu bàyyi la nga sant gërëm boo pare rek nga yëkkatul ñu si Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam sang-sang yi euh, di kontaan bu baax a baax ci sa euh, sa teew si Eleven News. waaw di wax euh, njaga moom ñoo daan ànd mais dafa am lu ko tee lu tax ñëwul maa ngi koy sant moom it di ko gërëm ndax sonn na ci bu baax a baax jàpp na ci it maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ndax it ñun fu ñu mës a dem boo geesoo da ngay gis njaga tey bu ñëwul boo ñëwee ba ci télé dinga ko tudd di wax maam Seynabou la fille de Siré Dia moom it maam Seynabou Ndiaye ak maam Payam Mbaye waaw ak Nabou Njegeen ñoo ñit ci bis bi lañ bokk dañ leen a jargale bis bi waa ak Xaadim Samb dëgg neexul looy wax Thier waaw kooku moom dama koy ñaanal rek gudd fan gu ànd ak wér rek moom xam na ne bu amoon man dépassé naa fi wa da ngay dépassé incha allah ñoo ngi wayit naa la kaj naa la xayru lambi yaa mi gën jaab ñe yaa jomba ñaawe way naa la ngay naa mi gën jaam yaa jomma ñaawe way naa la kaj yaa mi gën jaam ñe yaa jomma ñaawe way way naa la ngay naa mi gën jaam yaa jomma ñaawe Abdoulaye baayam Abdoulaye baam Fatimay maamam kii may way mooy sëriñu Abdoulaye Caam borom fondation kër Rasul Seyduna Muhammad mi tax ñu salaatakunoo yaa Rasulilaay bu di woon moom ñun yàlla du nu abdalaay laa ilaah ilaalah laa ma ngoog mbokk internet yi ñoo ko déggandoo eh, ndaanaan yaa ngi noonu eh, ñu nga dëkk nag ba Thiès benn dëkk ñaari gaar benn aéroport ah ñu ngi leen di jaajëfal eh, benn autoroute également ñu ngi leen di jox cër ju mat sëkk waa en tout cas seen doom a ngi noonu je dirais pas doomu Thiès mais doomu sénégalais ngoog kooku mooy nday mbay Ndiaye ngeen jàppale ko te ndaanaan la incha allah di ngeen ko dégg fu kawe bu soobee yàlla en tout cas beneen yoon. Euh, si beneen numéro si Eleven News incha allah ak beneen ndaanaan merci beaucoup.